mu mel ni mbokk yi ñu ngi biir arène nationale nag li ko waral mooy ku ne xam na ne olof a ko wax yàgg maar lu dafa waxuloo ay di njàmbat te 4 avril fi mu nekk nii mooy coow ci réew mi maanaam daj na àddina li ko waral mooy ñetteelu combat ci ñaari ñoo xam ne ba nu defantee ku ne gis na ne fa mu mujjee ci mettit Laat Njaay nag ni ma ko waxee woon ke mooy piloté moo tax tey ni ñu ma fekk si ko fii ci arène bi mook père Gaston du mën a ñàkk père xam naa mu ngi ci biir waaye da di booy seet boo gisee laat faw nga jëkk ci moom ba pare après nga doog dem ci père parce que melaat man ginnaaw mu la nuyu ziar la li nga sol laay jëkk a rafetlu tey Babacar maa ngi lay ziar da nga amoon a tooñ rek déedéet li yére ndongolu la rek benn taal daa rafet damaa xëy rek mu simple <laughs> Babacar fay nañ la di nuyu waa Sénégal di la nuyu di ziar ñi fi taxaw ñëpp rawatina nag sunu doyen vraiment alaaji Burxaan Wade ñu ngi koy ziar baax ku ne xam ne tey dañ fi ñëw nag am fi rendez-vous ak ministre bi ak télévision yeeg ñëpp ñu war a bokk làmb ji dañ fi ñëw rek uniquement pour xool stade bi nu ñuy def nettoyer ko xool manquement yi maanaam ci côté set fexe daal ba làmb ji ku fi ñëw la 4 avril dana nekk ci condition yi gën waaw loolu dag mooy tànk yi quoi. Hmm. tey mu mel ni yéen a ngi ci dernier virage yi fi mu nekk nii seen digganteek mbër yi comme yow lu ci bëri yaa koy piloté kon côté yëpp mën nañ ne lépp fi mu nekk nii tout est benn. non non noonu moom koy sant yàlla rek lépp féete na boor barke fi mu ne nii bu ñu jëm ci 3 jours 4 jours yaakaar naa doyen dina la jox wax dara yaakaar naa ne kooku sant yàlla rek ñaanal leen jàmm ak wér ndànk rek fu ñu jëm ñu xam ko lu ñu defee ñu xam ko te moytu parce que ku ne xam na ni semaine combat la ñu nekk le 4 avril daal yaakaar naa ne bu ñu la nee la Sène Lac de Guiers numéro 2 Modou Anta Diène Diouf Kayre ah George Bush ak xale ba nga xam ne mu dëkk jaxaay ñu koy wax nga ñëwate ci Papa Sow 2 bu Mbite Ndiaye ah kooku tamit Papa Sow 2 bu Mbite njaay war a ñëw bëri ak xale bu ñu wax làmp ñu war fa am tam yaawu jaal yamb muy lu ñu namoon waaw nga xam ne ak tartan bi ñu war a daw wëndeelu ba ak jaagar jaagar la amee woon la bu ca bu mag ba léegi ñu delloo si ko nag pour rek am amateur yi gis ci seen bopp si kontaan vraiment daal yaakaar naa la 4 avril daal te nag bul fàtte la 4 avril événement fi c'est une première door a mais nag ñu jàpp ne dix mille entrées lañu am 10 mille entrées la ñu am moitié stade bi ñu gaaw dem jënd billet yi mercredi lañ koy jaay pour que nit ñi dem jënd seen i billets 3000 la 10 000 la 25000 100000 donc jàpp naa ne loolu tooñu ñu kenn nañ ko teel a jënd kenn kuy ñëw nga respecté mesure barrière yi yor sa masque ah ak sa zel toog seetaan tey moytu loolu daal lañu ci loolu la ñuy woo ñëpp ca la ñu nekk. lépp lu ñu mën ci organisation bi jaar yoon ci nam ko daan defee ci kàttanu yàlla dinañ def lu ko waaw. dafa am benn question bu ma lay laaj retouru Baboy dañ ci dégg turu Gaston Mbengue ñu ne Baboy day dellu si ñu ne Gaston da ko bëggal combat dégg nañ fi turu Gris Bordeaux turu Amaneex te defe naa Gaston production jege nga ko lool. non làmb xam nga amul secret ci lu ñuy wax man nag li ma am habitude moom damay wax ci loo xam ne sotti na waaye lu sotteegul moom wax ci yaakaar naa ni peut-être xalaat ay suus ngay am yooyu rek mais man lu sotteegul moom mënu ci wax dara quoi dara. pakala la na sans production tout est possible. pa pakala moom da nga ko fi gis dimanche ci kàttanu yàlla. ba booy possible na pour ngeen tëggu. non boobu wax mënu ma cee wax dara parce que lu egseegul ak yooyu du détail actuellement li fi nekk te jàmp mooy Alé Kale ji jëm dimanche. ak pakala bi war a ñëw ak Forza. Balla Gaye numéro 2 Bombardier nga war a amaat Moussa Ndoye Sa Thiès waaw ñetti présentation yi lañu war a présenté amateurs yi ñu war a taxaw fii ci digg arène bi yaakaar naa daal nañ wax ci loolu ba pare. Hmm. tey ci côté sécurité bi tamit faw ñu laaj la ko parce que comme ni ñu ko waxee rek sécurité bi tamit yaakaar naa ne jël ngeen seen ay mesures yëpp. ah tey gis nga sapeur pompier ngi ne la taxaw ci lépp ci réunion la ñu jëm si ak yeneen ak yeneen gis nga leen fi am na ñu fi nekk ñu war a ñëw ministre dana ñëw ci réunion boo xam ne pour préparer journée bi ndax làmb ju toll nii nee naa la mi ngi door a am ci arène bi à part Lac de Guerre 2 Boy Niang donc kon lu mel noonu boo fa jëmee war nga indi beneen xar kanam war nga wane exemple ci contexte Covid la ñu nekk. donc lépp war nga ko wane loo xamante ni képp ku topp sa ginnaaw buy ñëwit dana war a ndax événement yi ci kanam bari na bu ma la nee Sa Thiès ci kanam ak Moussa Ndoye ngi ñëw bu ma la nee Abdou Diouf Pakala mi ngi ñëw suñ la waxee tey ni la Balla Gaye Bombardier mi ngi ñëw et tant d'autres te comme mooy bàyyi ñëpp dindi ndi yaayu ñëpp di la leader donkin jàpp naa ne lépp lu def pour mu baax dana ko def pour que buñ ci àggee ñëpp gis ñëpp kontaan. Hmm. mais à part journée yooyu ngeen tëgg noonu wala date yooyu journée yooyu ngeen tëgg ba pare wala combat yooyu ngeen ficelé est-ce que awante yeneen combat yoo xam ne yéen a ngi pour saison bi. ah Babacar Gaston li ma dégg ak li ñu bëgg ak li ne ci li ñu xalaat lépp bëgg ko problème bi kay mooy fu ñu koy tëggee te li ci gën a doy waar xam nga mooy lan li tax ñëpp war koo jaajëfal war ko félicité mooy seetal ñu ñi mu tëggoon ñëpp dañoo année blanche kenn mu ci mu jël ñëpp tëgg leen ba pare taxawul di avancé donc kenn ku ci nekk. yàlla defal na la sa cër te wax nit nii la tol taxul yow nga tuuti ndax man ku ma xam xam ne man ab laat mi ko gëm sama bopp laa waaye du ma toog di waxal kenn loo xam ne nekkul ci yow waaye nit bu defee dëgg da ngay ànd dëgg teg te jaajëfal ko waaye dëgg yàlla nit bu dee def effort boo ko boo ko félicité wul encouragé woo ko leneen loo def da ngay gaañ sa bopp ndax li ni fang kenn du ko jeex te lii leer na nañ on a gas sonal vraiment. ñu ngi koy jaajëfalaat encore di ko félicité te yaakaar naa du dul def làmb deful ci mënutul def ci làmb lu mu deful woon dégg nga waaye defal na làmb lu làmb amul jamono ji ndax ñii ñëpp dañoo ne blanchon làmb jëpp jaaxle ko ne naan fu mu bëri bëri am ay problème kon retour gagnant la ñëw ci heure bi mu war a ñëwee te loolu rek mu am solo ñëw na ci heure bi retour bi mu am solo toogoon na ñëwul mais bi mu ñëwee dafa fekk lépp taxaw mu ñëw décanté ko kon donc loolu am na cër bu fekkoon muy dox def dara lu feeñ lu lam defoon mais daa fekk mu taxaw mu décanté situation bi cooli jëru bari ñun ñëpp nañ sant yàlla rek te jàppale ko ku manit li man def koy a yaatu rek képp yàlla may kattan nga mën a yenu li mu yenu wala ngay mën a yenu benn def ko rek pour làmb ji gën a neex boobaat ñun ñëpp daañu ànd dayo jàppale la rek loolu rek la waaw su ma ñëwee ci date yi ak combat ngeen tëgg yëpp est tey am ngeen date yu siiri nekk combat di ngeen ko mën a def ren amee ah, no xam nga date combat Balla Gaye 2 Bombardier daa am alxame alxames ak altine Moussa Ndoye Sa Thiès daa am bés ah yow mi ku la ci bëgg xëyloo bu doon ci leen ngay liggéey nga bañ ah tey nga bëgg a jël Forza moom Bakala dañ koy génne yóbbu ko Kaolack dëkku président Birasène la jëm Kaolack lañ koy yóbbu yàgg nañu décentraliser Gaston yàgg na ko def. kon Balla ak Bombardier maanaam mënees na ko sax def bésu leen. amul bés Balla Gaye ak Bombardier ci bis rek wala Balla Gaye fii nii day signature suba nga def ko wooteel 10 heures wooteel Bombardier Balla Gaye 10 heures signature gratuite nit du fi xaj jaru ko ku ne ak ni nga toll waaw loolu la. kon xëccoo dari yow gisoo ne am nañu. amu fi bi ñëw na jël na place mu Gaston Mbengue c'est sant c'est le leader de la lutte sénégalaise ñu assume ko nag accepter ko nangul ko ko ndax mu nekk leader du tere keneen doon ki nga doon c'est simple hmm? du noonu loolu rek la lider bi ñëw na jiyaanante Babacar tey nga bëgg a déggati. waaw jël na pour yow. leader bi la bu dee. bu doon tey ji ci âge jaadu na ci moom bu dee ci jëf méngoo na ak moom ah bu dee nag ci palmarès def na lu ëpp li mu defoon waaye dafa ñëw ci heure lamba soxla retouram kon nag retour gagnant la dañ koy ñaanal yàlla jàmm yàlla defal ko sutura na ko ñëpp ñaanal jàmm rek jàmm rek mooy kuy jik ndax njariñu làmb la da ko yéenul jàmm da parce que làmb ko soxla te li muy def defalu kenn làmb danga la koy defal ñaata nit la engagé ñaata grand combat li ma ni mu ko te kenn nekkoon ci année blanche ci ñaata at la gëj ci làmb ji bi mu dellu si ak léegi foo kon accepte ñu nangu ñun làmb dong lañ fi nekkal amuñu sens indi di ak kenn képp ku fi ñëw bëgg làmb ñëw ci ñun seet si ñu wala ñu am ci cër seet si wuñ la buñ la mën a xel mu rafet wala xalaat danañ la ko jox suñu amee suñu doole lañ ko jox parce que làmb la du suñu métier nag dañuy xëy di liggéey di defee leneen lu dul làmb waaye nag làmb kenn ku ci nekk am ci cër di ci liggéey ba toll fi nga toog am na lu la am na am na lu la làmb defal donc nag ginnaaw moom ñëw na defal ñu loolu ñu doon jooy ay combat yu mag bi muy ñëwee la tëj làmb ji rab manqué ko am budget 300 millions ma bëgg ñaari combat yu mag barke Cheikhul Khadim maa ngi bëgg combat bu ma ko am hmm. waa làmb ga Gaston ñëw tëj làmb jëpp koy tëgg ku bees la VIP koy tëgg bees dàq la def dëgg ci dëgg bi yor 300 millions 300 millions teg taabal ji bëgg combat bu mag ba ma bëgg su ma la nga dar sa gémmiñ mënu ma koo tëgg ndax képp na mbëri Gaston jël ne ana ñoom Garga Mbossé ñaan yàlla ñoom Yékini si ñoom non bokkul déggul li ma lax de ay combat royal lañ soxla woon bi mu ñëwee dañ waa moment bi ñuy dikk Gaston dikk na ma ne ko nañu pause te la donkin moo fi ne na la toog xaar buur ñëw na ci këram. <laughs> te su buur ñëwee mbaadu daa déet ñu xaar ba mu pare rek bu pare mbaa ñu ñëw la ngaa mujj sax la ñu waroon jàllale ñu jaarale ko ci moom lépp mën naa ne ndax ko ànd ak moom moom bu ñëwee rek làmb yëngu boo see rek ñëpp dëkk bépp foo ubbi Gaston ngay seen télé beeg rajo beeg nit ñeeg làmb dañ koy respecté day jël beneen xar kanam te li may wax nii xam nga ko la doyen El Hadj Bourkhane Wade mi ngi nii xam nga moom Pikinois la taxaw nag ci biir arène national xam nga léegi gaz wàllam wàññeeku na ndax arène bi jege na ko. biir këram la de mooy sama doyen. xanaa gisoo ko coppati bi. la war a bëree sax de. waaw. te min na fii nax jot na fee jaar. da nga ko laaj fan la war a jaar ak Tafatine diggante booy ñaa kon nag mi ngi noonu mi ngi nii de. mi ngi war a dem bi. mais tamit côté presse bi faw ma laaj la ci. parce que am na ay di ay euh, écho yu ñuy am que ni presse bi moom. rawatina presse en ligne bi nga xam ne ci la genre Babacar yi nekk moom bu ñëboo génn seen xel ci Lac de ak euh, ka nga xam ne moo di Eumeu Sène moom bu ñëboo dagg bi ñëw seet toog seetaan. waa xam nga jamono ju ne ak la cay xew Babacar nit sañ na ni lii maa ko moom waaye li nga moom li la neex nga ciy def ah moom bu décidé di ko jaay à l'étranger may ko askanu Sénégal am li mu engagé moo ko signé moo xam li mu signé. bu taxawee ne du jël benn presse am na fu mu ko teg ki daan défendre presse bu taxawee tey ni lii mënu koo joxe ah yaakaar naa war nañ ko mën a déglu ba xool fu mu jëm waaw te naa benn bis nag yàqalul dara kenn nag am déet man mi yaa ngi may jël yaa ngi jël keneen ku ci nekk wax ci xalaatam ni Sénégalais yëpp bokk li nga yor nekkoo woon ci biir site rek site boo nekk nit ñu fekk la fa defal naa ko ma wax la rek site boo ñu fekk la fa du question ñaata si defi ne nga ay qualité man li ngay def gëmal sa bopp boo gëmee bopp rek lu ne man ko am loolu doo ngay dëgg qualité rek a wóor foo toog danga liggéey <laughs> mooy li wóor. waaye leen moom naa la ko wax moom moom bésam moom wax naa ko ko ci téléphone danaa ko ñu bokk ci ñu bañ caa bokk danañ ci liggéey ndax li tax mooy mérito nga lool ci làmb ndax 92 ba 2021 du ay caaxaan nag wax dëgg yàlla. waaw xam nga lu neex Babacar man dafa am benn jikko bu ma bëgg ci moom du signaler gauche jaar droite fa mu jëm la lay wax ak ci sañ-sañ wax ko ci dëgg te bañul ko ko mere looloy dëgg. nit ki li nga bëgg te nam ko da nga koy wax te dëgg ñëpp dégg ko waaye tey jii ma signal di la ba Babacar nga may wax accréditation may dóor sama téléphone di ko fay nga may wër wala nga toog ci télé bi ma la dana lu ma neex dong laa lay wax moo jëlee engagement am c'est lui le responsable c'est le promoteur kon li mu jël respecté ko nañ ko ko respecteel nit ki nag la mu moom sañ na ko téye man nag bu guddi jotee sañ damaa tëj sama kër téye caabi ji boo ko dajjul dama